mën naa wax ne Macky Sall. waaw bu bu ko temps bi maye woon danaa jël kan mooy maanaam danaa jël Macky Sall. Mm-hmm. ak euh, ni mu bëggee koo xam ne dangay jël sénégalais yi di leen saaga ay ndey. Mm-hmm. ak di leen xas ak di ah. leen yàq. ah bon saa boo gisee nit koo xam ne daf koy def. waaw du yàgg dara nga gis kooka moom ak Macky Sall am ay relation ah bon voilà lu tax wax lool. damay njëkk tàmbali. waaw saa ci. Euh, ku ñu wax Ndiogo wàkk sekk Ndiogo Wack Seck Ile Midi. Ndiogo Wack Seck journal moom laa njëkk a xam ci ab sénégalais buy jël saaga di ko bind ci ab internet di ko bind ci këyit di ko jaay. Hmm? ci journal Ile Midi. di saaga Idrissa hmm? di ko saaga yaay di ko saaga baay di saaga soxnaam di saaga fameem di saaga waasaw yi mbokk sax da ko doon saaga. Hmm? di bind ci internet di ko bind ci ci ci journalam di ko jaay kooku Ndiogo wàkk sekk la tudd. jamono boobu muy saaga Idrissa Seck saaga yu metti yi. waaw ñëpp di ko ñaawlu Macky Sall jël na ko. dugal ko ci biir cabinet di liggéey ak moom moom Ndiogou Wack Seck booba Macky Sall mooy premier ministre. Mm-hmm. ñu jóge ci journal. deuxième personne bi fi njëkk a ñëwaat ñu gis ko muy saaga publiquement te nëbb ko. mu ñu koy wax Souleymane Jules Diop mooy jamonoy Skype ak Seneweb dégg-dëgg. waaw nga xam ne day jàpp sëriñ si bàyyiwut kenn bàyyiwut waa Touba. Mm-hmm. sëñ Abdou Siñoor ak mën soo rek bàyyiwut waa waa Tiwaawan. Mm-hmm. dem na ba fiy dendalee saaga daanaka ak sëñ Saaliw mi. Cheikh Béthio ku mu bokkalul gis-gis saaga na la. ba Macky Sall faloo. dafa dem ba euh, Canada. jëli ko indi dugalaat ko ci cabinet mu fekk fa Ndiogou Wack Seck muy ñaari saagakat. Hmm. biñ doxaatee tuuti Californie ñëw. bi Californie ñëwee di saaga institution yi lay saaga moom na gisuma ko mu saaga sëriñ waaye gis naa ko mu saaga gendarmerie. Hmm. ensemble police ministère yi maanaam bépp institution bu nekk senegal saaga na ko. Hmm. Macky Sall dem ba France. jël ko toog ak moom def ci def ak moom live ci même scène bi mu doon saaga institution yi. Hmm. ba noppi boole ko ci partem hmm. kon ma ma ngaa ñetti saagakat. waaw ministre yi Abdou Diouf. waaw ministre yi Senghor. ministre yi ci génneel benn ministre buñ ne jamono bi muy exercer ministre gi. taxaw na saaga ndey publiquement. Hmm. ba Diattara. nekk na ministre. waaw taxaw saaga opposition ab opposant tudd ko ay awraam di ko saaga. publiquement te booba la. te bi mu paree Macky da ko promouvoir yokkalaat ko ministère am. Mhm. kon beneen saaga kat a ngoog. ñu jóge ci. Mhm. barki démb def na loo xam ne moom du ma ke maanaam askan wi wuruñu ko ko baal ba yow mal xayam. mooy jël kooku ñuy wax kura Macky. Mhm. nga xam ne da ngay xoolaat foofu sax kan mooy Macky Sall. parce que kura Macky dama ko seetaan fii ci int 2 bi mu ne. waaw ñu ne ko lan moo la dugal ci Macky Sall. Mm-hmm. mu ne damaa gis Assane Diouf tijji ab Facebook di saaga Macky Sall. Mm-hmm. manit it ma tijji sama Facebook di saaga opposition bi. Mm-hmm. loolu maanaam ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy def. moom ah. Assane Diouf a ko inspiré. Assane Diouf Macky sàll lay saaga. Koura Macky askan wi lay saaga. léegi xoolal Assane Diouf lan mooy ak mu jëm. waaw jëlee Europe jëlee États-Unis indi. damm tànkam dajji seen kër toj néegam. yóbbu ca kaso bi tëj ñaari yoon. Koura Macky mi nga xam ne moo Assane Diouf ñoo nuroo même luñ doon def. waaw Koura Macky États-Unis lañ ko jëlee indi. Mhm. jox ko ay mu nekk Pikine gii di ko séddale. Mhm. dugal ko assemblée nationale mu falu nekkub député te ñoom ñaar ñu bokk même fonction kii di saaga kii di saaga. Mhm. kii nga mu tànkam tëj ci kaso bi kii nga fal ko yóbbu ko kii kon Macky Sall bañul kuy saaga. mais kuy saaga askan wi la bëgg. bañut bëggut kuy saaga waaye ku koy saaga la bëggut. saa booy saaga askan wi. mu jël la parce que Koura Macky. waaw Macky man naka ngay mën a bàyyee ka ñuy wax ramamake mu nekkoon ab ab ab artiste comédien bu daan ànd ak Mame Mbaye Niang mii waaw bu yàgg ca APR yu njëkk ya fan la nekk ba jëloo ko nga dugal ko ci sa list hmm. bi mu kuréel ak yi nekk nekk nekk nekk député. Hmm. Adja Soda Dieng mii di woote ci rajo yi. waaw nga xam ne 2008 2009. ma hmm. ab ab ab restaurant ma nga jàkkaarloo woon ak place Kabou Fall ca Touba Darou Khoudoss ma xam ko. waaw maa ngi moom daanañ bokk benn pick-up. di dem ci manifestation yi APR yi. jamono boobu maa ngi ànd ak Cissé Mm-hmm. dégg nga booba Macky Sall bu ma saan ñëw tuubaali koy topp matul ñaar fukki nit. Mm-hmm. dégg nga ma Adja Soda Diang anam. Mm-hmm. ana ñoom ñoom ñoom mu du Fall Kaala ana ñoom Fallou Lo Sam. Ah, ana Baye Maguette Diakhaté maanaam ñi nga xam ne. 2007 ba léegi ñu ngi topp sa ginnaaw di dart dart di daw. waaw Bas Diagne ñoom ak amu ci kenn koo xam ne maanaam. maanaam am na dara ci Macky Sall. benn waaye boo xam ne barki démb la tijji Facebook di saaga donc. Macky Sall li njëkk def mooy jël ko dalal ko ne ko gis naa liggéey bi rafet na. waaw ci saaga si. Mm-hmm. dégg nga. waaw ñu jóge ca nga lijjanti ko ba ab liste a ah, list boo xam ne waa APR mënuñu cee nekk. nga jël nga jël nga jël Coura Macky dugal ko ci. mënta mm-hmm. falu parce que vingt-neuvième la nga fexe ba démissionnaloo ay nit pour ma Coura Macky mën a dugg. Mm-hmm. pour que rek muy saaga askan wi te Coura Macky. mësuma gis man. nit ku ko gën a ñàkki teggin. Coura mësuma koo gis. dafa ñàkk teggin kuroo Macky bàyyiwul waatu hmm. waati waawa waati ah. waawa dégg nga la mu wax Iran naan Iran awra moo nee la toll ak ah. daa dañ koy kuus hmm. naan ay ay ay ay ay ay daa am doom ju mu ëmbal ak hmm. jóge ca ñëw ñëw ci mbàkke mbàkke yi gis naa ko mu am ay sëti sëñ Touba yum naan dañ leen ay góor jigéen lañ lañ leen di juutal moo ko bërki bu yàggul doo nga laa gis nii mu di ko wax dem ca waa kër Baye Niassé di saaga ñoom Baye Mbaye ak ku ne mu saaga Niassé yi mhm. jóge ci gis naa ko fii mu jàpp Iran Ndaw euh, kii euh, euh, Bougane Gueye lu ne wax na ko ko saaga fii Cheikh ñas mhm. yow mii bàyyiwu la mhm. bàyyiwut soxay bu muy bàyyiwu ma ku ne gor su ne mu daggal la saagaw ndey Macky Sall amul lenn lu muy fayee sénégalais yi lu dul jël kooku nga xam ne kura mënoo wax ne maanaam ay nit la am amuti nit amuti nit du Amérique la ko am du fii la ko am waaw dégg mënoo wax ne euh, influence la am wala xam-xam. Mhm. parce que Coura fecc katu bale la woon. Hmm? bale da daan fecc bale waaw bale loolu doo nga la man kay fecc bale la daan def. Hmm. dégg nga ak di ànd ak badu badu benn góor jigéen boo xam ne. Hmm. moo njëkk a nekk góor jigéen ci réew mi moom loolu la daan àndal. ah moom bëkk néegu badu la woon foo masan fekk badu badu góor jigéen ñoom ñaar ñooy ànd. moom voilà mhm. mu jóge fa dem États-Unis. waaw après nekk ci Facebook bi di saaga ndey Macky Sall andi ko fal maanaam bu defoon enquête de ci moom. mais yow Cheikh Bara yow. du du du ko fal. Mhm. Ah, mais loolu lépp. Macky mhm. Sall moo ñu tooñ. Mhm. képp koo xam ne APR nga nekk di sonn ci moom. amul ci yow soxla. waaye képp koo xam ne maanaam osé nga. taxaw di saaga kilifa diine yi. wala nga taxaw di saaga gor ñi nekk ci réew mi. xaritu Macky Sall nga. te ca njóogu wàkk sekk ba tey. waaw seetlu leen képp ku mas di saaga. Macky Sall def na la ci wetam. d'accord ba noppi nag bu taxawee fii naan saaga baaxul. Hmm. loolu moom mayetuñ man man comme kuréel Macky Macky Sall fal na ko fii ci assemblée bi. waaw man Cheikh Bara moom mayetu ma Macky mu taxaw fii ci penc mi moom. Hmm. ne saaga